al-aayatayni mi'atun téeméer la wa salaasuna ak ñett fukk eh, mi'atun téeméer la wa salaasuna ak ñett fukk aayatan ci aaya de baraatun saar la woo xam ne tàmbalewut bisimillahi rahmaani rahim mu ngi tàmbalee rek baraatun lu tax tàmbalewut bisimillahi rahmaani rahim borom firikat yi dañoo wax ne tàmbalewu ko ndax bisimilah rahmaani rahim yërmande la te baraatun mbugal la moo tax mën a ubbee turu yërmande ci loo xam ne ci mbugal la jëm de loolu moo tax defuñu bisimilah rahmaani rahim mu ne baraatun di la ak dëñ la <coughs> mina laay gu tukkee ci yàlla war suul ak yonentam de yàlla ak yonentam dañ nañ ci xeefar yi ila alladina jëm ca ñaaña aatumoo la leen taalam xam ñoom minal mushrikina ci xeefar yi de xeefar nga xam ne sa digganteeg ñoom defoon ngeen kóllëre te moo doon kóllëre Xudaybiya ñooñu kóllëre googu yàlla génn na ci yonent yi itam génn ci de fasiixu dox leen fi ci suuf arbaata ashurin ñeneenti weer te ñeenti weer yooyu ci mu ngi tàmbalee ci shahru shawal ramadan ba ci shahru muharram de mooy e, shahurul muharram yi nga xam ne yàlla xaramal na ko ñeenti weer yooyu rek la leen may de su ñeenti weer yooyu jeexee nag li jaaroon sa diggante seen diggante ak yonent bi ak yàlla ci kóllëre yëpp jeex na de wala moo xam leen yéen xeefar yëpp annakum naka yéen xayru mu'jizillahi du ngeen wéeru ci yàlla de na xam ne yéen mënu leen a rëcc yàlla ak mbugalam yàlla de wa anna allaha ak naka yàlla muxzil kaafiriin aji toroxal la mu xéefar yi wa azanun li la xam le gu tukkee yàlla wa rasuli ak yonentam ilan naas yi ci nit ñëpp yow man xaj ji ci bésab xaj ba alak bari ba daa ji màgg de lii nag eh, lu yàlla di xamal Quraysh ak xéefar yëpp la bésee xaj ba ci lañ leen koy jottali ci la ñuy génne bayaan boobu de ci bi saxaj baal na bi taalib fekk yonent yónne woon na Abubakar na dem jiite ji aj ji ba mu demee laaya ji wàcc yàlla yónni naa Aliyu ne ko demal jàngal Quraysh laaya ji bi Seydina Babacar gisee naa Aliyu mu yow mu ne ko ndax dañ ma folli fal la mu ne ko déedéet liñ la santoon dem ci may tamit dañ maa yónni ngir leneen de mu li ma doon indi nag mooy jàngal leen jàngal bayaanu eh, xadara bi nga xam ne ñëw na di wone génn ak yàlla ak yonentam ci kóllëre gi nga xam ne fasante woon nañ ko ci yow ma Xudaybiya te ñoom Quraysh ñu firi ko de anna laaha naka yàlla bari yow naa ji dañ la mu minal mushrikiina ci xeefar de yàlla dañ na ci xeefar ya ak seeni kóllëre yëpp ak seeni ah, ak seeni kóllëre yi jaaroon yëpp yàlla dañ na ci de wa rasuluhu ak yonentam itam dañ na ci de fa in tubtum neem tuub ngeen nag jógee ci keefar foofu moom xayrun moo gën la kum ñaar leen su fekkee nag tuub ngeen jógee ci seen keefar ñëw gëm yàlla loolu moo gën ci yéen de wa in tawallaytum waaye neem dëdd ngeen faala moo xam leen annakum nag yéen xayru mu'jizillahi du ngeen wéyru ci yàlla de su nag bañ geen dal seen keefar rek xam leen ne du ngeen ci yàlla de wa bashiri xamalal alladina ñaaña kafaru wéddi nañu bi azabin ci mbugal alimin mu da yittat na nga xamal nag keefar yi nga xam ne ñu ngi sax ci seen keefar wa waadee den mbugal moo xam ne mi ngi ñëw ci seen kaw te mbugal moomu mbugal mu tal la illa alladina ndara ñaaña ahatum xollolu xeen woon ak ñoom minal mushrikina ci way ci xeefar ya suma lam yankusuukum topp wàññiwuñ leen seen dara wala mu zaahiru dimbale huñu aleykum seen xadan kenn ci xeefar yi de fa atimu matal leen ilayhim jëm ci ñoom aadahum xollore seen ilaa muddatihim jëm ba ca ba jeex eh, seen dexal ba de inna naka yàlla yuhibbu dana mu yool al muttaqina way ragal yàlla de loolu mu ngi wàcc ci diggante xusaama xusaa xusaata ak eh, bani bakar bani bakar ak xusaata ñoom ñëpp ci xarbu xudaybiya te kenn ku ci nekk na nga am koo faratoon ñëpp xusaata farag yonent banu bakarin farag quraish ñoom ñëpp ku ci song sa morom xeex rek kenn ki wa benn benn benn kuréel bi war naa jóg jàppale ko ku ñu song ba ko defee nag banu bakkarin song xusaata ca makara ci ñoom kenn ba ko defee nag loolu la yonent yu woon di dimbale xusaata ba loolu mooy indi fatu makka de waaw fay leen salaxa neem mat na nag neem jeex na al ashuru yàlla al xuruma yàlla ñu geer ci seen biir su fekkee dem ngeen nag ba nga xam ne weeru geer yi weer yi nga xam ne xaraamal na ngeer jeex nañ faxtulu xeex leen al mush faxru faxtulu xare leen al mushrikina xeefar yëpp su ngeen demee nag ba nga xam ne weer nga xam ne mooy ashurul xurumi mooy lu ko dalee shawaal ah, ah, ba ci ah, muharram mu ne bu ngeen ñëwee ba nga xam ne weer yooyu jeex na nag bu boobaa daga daga na ngeen xeex ak xeefar yi de fu ngeen leen fekk rek xeex leen ak ñoom xaysu wajatumuhum sa fu ngeen fekk leen de bu boobaa fu ngeen fekk xéefar rek dal leen ci kawam de waxuzuhum jàppaleen leen ñuy ay eh, ay jar jàppaleen leen leen ñuy ay jar de waxsuruhum tëj leen leen ci kaso yi waxudu toog leen lahum ñee leen kulla marsadin bépp fuub waay de ci wépp yoon de su fekkee nag dem ngeen ba nga xam ne ashhuru xurum yeex jeex na nag fi mu ne nag fu leen xeefar yi songati xeefar fu leen xeefar yi songati rek songu leen leen de ndax xeefar yi daf daan dañ daan profité ci ashurul xurum yooyu léeg-léeg ñu yoot rey dara ci julli ñi comme noonu banu bakkër def ak banu xusaata ba mu ko defee nag yàlla wax leen nag bés boo xamee ne ashurul xurum yooyu nga xam ne moom la yàlla xaraamal seen diggante jeex na léegi nag seen diggante xeefar yi xeex leen rek fu ngeen leen fekk xeex leen ak ñoom fu ngeen leen fekk te mën leen a jàpp itam jàpp leen rek def leen ay prisonniers te itam ngeen tëj leen ci kaso yi ba nga xam ne dootuñu mën a xeex ak yéen de waxtu du toog leen lahum ñaar leen ku la masadin fi wépp yoon da ngeen leen toogal nag ci wépp yoon woo xam ne ci la ñuy jaar di defi yiñ bëgg a def mu ne na ngeen leen fuug ci yoon yooyu de bu ngeen leen gisee rek dal leen ci seen kaw de fa in taabu ndem tuub nañu jóge ci kéefar waa xaamu ñu dikkee asalawaat salaata julli yu juróom waatu ñu joxe azakaata asaka fa lu bay leen sabiilahum yoon seen de su fekkee ne nag kéefar yooyu dem nañ ba nga xam ne génn nañ ci génn nañ ci seen kéefar gi tuub nañ dugg ci lislaam di julli seen julli yu juróom seen alal ñu ci génn ñu ciy génn asaka mu ne mu ne yàlla mu ne yonent bu booba nag bàyyi leen leen bu leen leen defati dara ndax bu baax seen i mbokk lañ ci diina de inna allah naka la xafuurun ay jégal la mu ñeel ay xeejam raximun aji leen de way na xadun ndem kenn ci xeefar yi eh, minal mushrik wa in ahadun ndem wa in wa in istajaaraka ndem dimbali koo la ahadun kenn minal mushrikina ci xeefar yi istajaaraka dimbale dimbalee na ndimbal <clears throat> fa ajurhu hóolu loo ko de wa in istajaaraka wa in istajaaraka neem hóolunoo hóolunoo na maanaam ñan ñan la ci ci rey ahadun kenn minal mushrikiina ci xéefar yi fa ajirhu may ko kóllëre googu de xataa yasmaa babata bata mu déggee kalaamullaahi wax yàlla su ma ableexu topp jotal ko ma man a xu barabu hóoluwaay hóoluwaayam de su fekkee kenn ci xéefar yi ñëw nañ di jul di yow yow yonent bi ñaan la ne la nga may ko kóllëre bu ko rey ba ba mu xam li ngay wax yàlla mu ne bu ne yàlla mu ne yonent bi bu la ñaanee kóllëre rek may ko kóllëre bàyyi ko mu dem te itam bu ko bàyyi rek mu dem waaye danga ko dimbale jàppale ko ba mu àgg ci barab bi nga xam ne fa lay yëgee ne fii àgg na ci kóllëreem àgg na ci biir mbokkam de su ma ah, su ma ablugu topp jotal ko ma amanahu barabu xuuruwaayam <coughs> zalika loolu ñu tudd ci kooku di ñaan ndimbal bi annahum ci naka ñoom xaw mun nit ñeen xaw mun aw nit lañ laa yàlla mun a xamuñ dara ci diina yàlla de ndax ñooñu nit lañ xam ne ay dof lañ rek xamuñ dara ci diina yàlla ji bon nag jarul rek tëb di tëb di bu rey buñ la waxee nànk rek dafa nànk ñoom de kay fa yëkku nekk tit kayfa nag kayfa yakunu nekkati lil mushrikiina ñeexal bokkaalekat yi xeefar yi aadul kóllëre inda Allahi fa yàlla wa inda rasul yi ak yonentam de diggante <clears throat> yàlla diggante yàlla ak yonent bi kóllëre gi nga xam ne moo nekkoon diggante xeefar yi ak ñoom keefa ak kóllëre googu dañ na de illa la dina ndara ñaaña ahadtum kóllëre yonte nag ñoom indal masjid yi sa jàkk ji alxaraam yi jële ñu formal de te mooy yom xudaybiya ba nga xamee ne gëñ woon nañ ak yonent sallallahu alayhi wa sallam denc denc jaas yi fukki at bañ a xeex ci la ci la xuru Quraysh nag ñoo xuru kóllëre googu ñu defoon ca xudaybiya nu mu ko xuruyee mooy ni ñuy wax sànq bi nga xamee ne yonent ak Quraysh waatoo na ne dinañ def nangam fukkiyaat at fukki at ko xeex fukki at dinañ nangam fukki at dinañ nangam ñoom ñëpp ñu d'accord ci dal di ñu dal di si signé bañ ko defee nag léegi loolu ubbi nañ ko pour mbooleem arab yi arab yi arab yi kum neex ñu tànn ci ñaari kuréel yooyu ànd ak moom bu leen neexee kum neex nga ànd ak yonent kum neex nga ànd ak Quraysh banu xuzaata ñoom tànn ànd ak yónnante ne ñoom yónnante ñuy ànd ku ku xeex ak yónnante ñoom banu xusaata dinañ xeex ak yow ku ba ak banu xusaata yónnante dana xeex ak yow nu bakkir tànn xureesh ñoom itamit ne ku xeex ak xureesh danañ xeex ak yow ñoom itam ku xeex ak dana xeex ak ñoom ba mu ko defee nag banu bakkir ca Màkka ñu rey fa dara ci mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak yónnante ba mu ko defee ñoom ñu daal di bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah ñoo paktoon de nangam ak nangam léegi nag Banu Bakar songu nañ rey nañ ci ñun ay nit ba mu ko defee yonent daal di noppi ne noppi rek waxu leen dara ñu bindaat ko mu ne noppi leen rek dinaa leen dimbale dinaa leen dimbale ci la yonent takkee xeer xa xare nag dem ubbi ji fa makkata <coughs> mu ne ñooñu kóllëre googu amoon nañ amoon seen diggante na ko sàmm de famastaqaamu feeg jubal nañu lakum ñeel leen de feeg taxaw nañ ci kóllëre gi di ko sàmm fastaqimu tax jubalal yow tamit lahum ñeel leen de su fekkee ñu ngi sàmm kóllëre gi dañ ko war a sàmmee yow tamit nañ ko sàmm de inna allah naka yàlla yuhibbu dana mu yool almuttaqiina way ragal ne yàlla de wa in kayfa wa in kayfa kawteef kayfa nekk tit kayfa wa in yalxaru kayfa wa in yalxaru nekk tit ànd ak ñoom nekk tit ku lorente ak ñoom ah, ndax eh, yow xaru ndem ndem xam nañu aleykum ci yéen yoon laa yarqubuuna sàmmtuñ fiikum ci yéen illan jege ñaale wala dimmatan du càggeen ku de ñoom ñooñu jarut ngay dimbalanteeg ñoom bul dimbalanteeg ñoom ndax ay nit lañ ñoo xam ne amuñ ku nit lañ ñoo xam ne buñ la jekkoo danañ def ci yow loo xam ne dootuñu sàmm li jaar sa digganteeg ñoom dootuñ sàmm mbokk gi dootuñ sàmm itam kóllëre gi nga xam ne nekkoon nañ seen diggante de ñoom ay xeefal lañ dañoo bon rek dañoo bon amuñ amuñ amuñ amuñ damir boo boo boo boo leen joxee kóllëre ñoom buñ la jekkoo danañ la te duñ sàmm loolu jaar seen diggante de bon nag bu leen joxati kóllëre de yurdunakum danañu gëdëm loo leen bi afwaahim ci làmmiñ seen boo tasee ñoom dañ lay wax rek wax yu neex wax yu neex rek lañ la wax ba nga xam ne wax yooyu boo ko gëmee loolu ñuy wax yarduunakum danañu gërëm loolu yëpp bi afwaahim ci làmmiñ seen ci seen wax yu rafet wa wataabaatee bañ loolu ñuy wax ci seen làmmiñ quluubuhum ay xol seen li ñuy wax ci seen làmmiñ yëpp seen xol yu gëmuñ ko de ñu ngi lay wax lii waaye fekk leneen lañ bëgg a def de mu ne ñooñu bu leen ñooñu te amul amul amul kóllëre gooy jaarale seen digganteeg ñoom de <coughs> wa aksaruhum gën jaabali seen <coughs> faasiquuna way firi lañu kóllëre de ñi gën a bari ci ñoom xeefar yooyu yëpp di la wax wax ju neex te ñi gën a bari ci ñoom ñëpp bu ñuy génn rek di firi kóllëre gi jaar sa digganteeg ñoom ishtaraw jënd nañu bi ayaati laahi ci alquraan yàlla ji sama samanan njëg xalilan bu dee aji néew fa saddu tañ fekk nit ñi an sabil yi walis yoonu yàlla de ñoom bàyyi nañ àddina topp seen bakkan topp seeni baax topp seeni bànneex ba fàtte yàlla loolu doyut ñuy xaaye nit ñi nag ñi bëgg a ñëw dañuy dugg ci diina yàlla ñu leen di xaaye dugg diine yàlla ñu leen di xaaye dugg ci diine yàlla ji innahum na ko ñoom saa bon na maakaan lañ ne ko ñaama doona li jëf ko ñoom loolu ñuy def loolu ñu doon def de jëf yu bon la waaye nag jëf ju bon payam mooy fayeeku rek su ko defee nag yàlla wax na ne ne ne ne bu leen leen nangul li ñu leen di wax ci seen gémmiñ yi wax yu neex yooyu bu leen ko faale de laa yarqubuuna ñoom sàmmtiñ sàmmtiñ fii muminin ci jullit il leen jege ñaale wala zimatan du càggeen kóllëre de seen digganteeg jullit ñi di ci nekk ci kóllëre ak jegeñaale waxtu wuñ leen jegee rek waxtu wu wuñ leen jekkoo rek dutuñ sàmm loolu de dañuy def liñ bëgg de wow laay ka ñooñu la gaa yi di def loolu comme ñoom almuhtaduuna ñoo ma di way dayo de ñii leen di def noonu nag nga xam ne amuñ benn kóllëre ñooñu ñooy jéggi dayo de waaye fayin taabu neem tuub nañu waa xaamu tañ taxawee astraté julli juróom waatu tañ joxe zakaata xalal fa ixwaanakum mbokk senda fi diini ci diine de wanu fasilu danañu bidal alaayaati kawteef yi li qawmin ñeer aw nit yàlla moom ñun dinañu xelaat de ñu ngi leen di biddalal yi ngeen war a def yëpp di leen ko tëralal de ndax ngeen mën a xelaat ba def lu baax de way naka su ndem firi nañu ñoom xeefar yi ay maanahum ay ay ay kóllëre seen ay ay gëñoo seen min baadi ahadihim ci gannaaw ak fas ko wata anu ñu ayibal fii diinikum ci diine seen waa wata anu tañ ayibal leen fii diinikum ci diine seen waqaatilu rayante leen rey leen ay matal ku fi njiiti xéefar yi de su fekkee nag ñoom waa Makka Quraysh xéefar yi kóllëre gi nga xam ne jaaroon na sa diggante ak ñoom ñoom firi nañ ko gannaaw boo xamee ne façon nañ ko gannaaw boo xamee ne nekkoon na ba pare ñu xem ci firi ko waaye ñu leen di mankilal di leen ayabalal seen diine di ayabal seen diine mu ne ñooñu fa qaatilu rayante leen xare leen ay matal ko fi sangi xeefare de su loolu amee na ngeen jóg xeex ak ñoom rey seen sangi xeefar yi de ndax lan innahum naka ñoom laay maa ngi dee kóllëre lahum ñaar leen de mu ne ñooñu amul benn kóllëre goo xam ne danañ ko sàmm de ndax waxtu wuñ jekkoo rek firi seen kóllëre de laa lahum ndax tale ñoom yéen tawu nañu day wala si ak kéefar de ñu bàyyi ndax boo leen de boo paree pour xeex ak ñoom sang xale bu xeex seen sang yi bu boobaa mun naa am <coughs> loolu dana tax ñu bàyyi kéefar gi ñu nekk <coughs> dugg ci diine de alaa tuqaatiluuna àqara ci leen xaw ak ak aw nit xaw man aw nit naka su firi nañu ay maanaam ay kóllëre seen lu tere sax yéen jullit ñi ngeen xare ak ñu ñoo xam ne kóllëre gi jaarul sa diggante ak ñoom ñoom firi nañ ko ñooñu xeex xare ñoom wàññiwul dara waxam te ñu ngi teewoo bi ixraaji rasuli ci génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka bañ waxtaanee ca Daaru Nadwa bëgg a génne yonent Makka ñooñu ñooy xeefar yooyu rek ñooy xeefar yi digga yéen teeg yéen ba tey <coughs> waxum ñoom ba daw kom tàmbali nañ leen tàmbali nañ ab xeex ak yéen ñoom ñoo leen tàmbali ñoo leen njëkk a song ak wala maratin ci njël benn ak yoon ndax ñoom ñoo leen njëkk song de te mooy mooy mooy lan mooy ba nga xamee ne xusaata ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci géñoo ak yónnante banu bakkarin ñoo leen song de xeex ak ñoom bon nag gannaaw ñoom firi nañ seen kóllëre lu tax lu tere di taxawaalu bañ a jóg ak ñoom jóg leen xeex ak ñoom de waaye yónnante nekk fa nekku fa dem di xeex banu bakkar dafa dem rek dal di dal ci Quraysh dal di indi fatu makkata ci loolu la fatu makkata bàyyi ko de a tax caw na um ndax da ngeen ragal leen fallaahu yàlla xaq moo gën a yee an tax caw bu ngeen ragalat ko ci bàyyi bañ xeex ak ñoom de ndax da ngeen a ragal xeefar yi xamu leen ne yàlla moo gën a xeeyoo ngeen ragal ko yàlla moo gën a xeeyoo ngeen ragal ko ba tax waru leen a bàyyi xeex bi ndax ragal xeefar yi de in kuntum dem nekk ngeen mu'miniina di way gëm su fekkee ñu gëm ngeen bon nag lii ngeen di def qaatiluhum xaral leen ak ñoom yuazibhumullahu mbugal leen yàlla fii ci àddina cere rey gim leen di rey dañ ca wa bi ay diikum ci yoxo seen rey xeex leen ak ñoom yàlla dina leen dimbale yàlla dina leen dimbale yéen ngeen rey leen ci seeni loxo de ni ko waxe woon démb wa ma wa ma qataltumuhum walakin allaha qatalahum ne yéen jullit ñi yéen songoo jëf ji rek waaye yàlla moom moo rey xéefar yi de ba mu ne na ngeen na ngeen xeex ak ñoom ci seeni loxo su ko defee nag yàlla moo leen di dimbale de ni leen di dimbalee nag mooy da ngeen leen gañe fii ci àddina rey ci ñoom yu baree bari su ko defee boo demee àllaaxira nag mbugalam safaraak leen safaraak leen di xaar xaar de aatiluhum xare leen ak ñoom yuazibumullahu mbugal leen yàlla bi ay diikum ci loxo seen yéen ci ci rey gi ngeen leen di rey de wa yuxzihim tam toroxal leen ci njàpp ak notaire fii ci àddina su ko defee nag àllaaxira safara ak leen di leen xaar de wayan surkum tam dimbale leen alayhim ci ñoom yàlla dana leen dimbale ci xeefar yooyu de waye fii tam fa faj tam faj suduura qawmin ah, ah, dënnu aw nit muumin yi nañu de way gëm yàlla de ca la jullit ñi defoo ca la Banu Bakar defoon ca Banu Xuzaata mu ne yàlla dina leen dimbale ba nga xam ne da ngeen mën a jot seen boom gi nga xam ne Banu Bakar def na leen ko ci yéen ca foofa de wa yusib mu demee xaysa qulubihim naram xol seen seen xol yi mel yi ci nekkoon yëpp yàlla dina leen dimbale ba ba ba faj ko de wa yatuubu llaahu dana nangu yàlla nag tuub alaa man yashaa ñeel ku ko soob ci ay jaamam bu fekkee dellu si na ci lislaam de su fekkee nag xeefar yàgg noonu ñu mel ñëpp kenn ci ñoom jóg na tuub duggu ci lislaam bu boobaa tam yàlla nangul na ko tuubam de ndax gannaaw boo xamee ne euh, kóllëre googu jaaroon diggante yonent ak Quraysh bokkoon na ci yonent bépp bépp Quraysh boo xam ne jógee na Màkka ñëw tuub si ci yow dañu koy delloo ñu eh, dañu koy delloo de ñun nag duñ la delloo ku ñëw ci ku ñëw ci ñun ñun duñ la ko delloo yonente ne d'accord na ci loolu ku tuub ci ñoom ku ñëw ci moom ne dafa tuub si yonente dina la delloo ci ñoom ñoom yonente nag ku jógee ci moom dem ci ñoom ñoom duñ ko delloo yonente ne d'accord na de ci loolu dam ko defee nag nekk ci loolu nag ci la wii xay wi leen di xalak foofu lay bàyyeekoo de ndax am na nit ñoo xam ne jógee nañ màkka tuub dem ci yonant bañ demee tuub yonant charte bi nga xam ne biñ doon koo xoro si mooy dafa leen di delloo mu ne leen déedéet dellu leen dellu leen seen dellu leen rek màkka dellu leen dellu leen abu abu basir ci la ku ñuy wax abu basir ci la bokkoon moo ko daanaka moo ko jiite woon ba mu ko defee nag bi bi mu ñëwee tuub yonent nangul ko nangul nangul na ko tuubam waaye nag ne dellu si ay mbokkam Abu Basir na moom tamit gannaaw génn na fi hijra fillaahi wa rasulihi bon dootu dellu ci ay mbokkam dal di def benn benn benn xayma rek ci àll bi dal di fay dëkk képp koo xam ne bëgg nga tuub te xam ne boo demee ñu delloo la nga ñëw ci Abu Basir nekk ak moom de ñu nekk fa ba mat mbooloo su ko defee alali Quraysh yi si rek muy màggaan rek ñu dogale ko nangu ko bu ko defee loolu dal di métti ci ñoom lool ba mu ko defee nag Abu Basir moomu loolu la nekkee woon ak Quraysh ba Quraysh mbëgg sax Abu Basir dellu ma dina waaye nag gannaaw charte bi moo doon ku ñëw ci yow da nga ko delloo yonent du nangu nit ñi nit ñi di di ñëw ci moom de ba ko defee Abu Basir nekk foofu ak ay nitam di dogaan njëg njëggi Quraysh yi di dogaan Quraysh yi ci àll bi di leen tiital de ba ba ba fat ba fatu makkate ñëwee ba fatu makkate ñëw ñu ubbi fatu makkate ba ko defee nag ñooñu de yàlla di wax ne a ah, waya tuubu laawuta nangu yàlla ala man saa ñeel ku ko soob ci dellu guy dellu ci lislaam de wallaahu yàlla alimun aji xam na mu ay mbir seen na aji xereñ na mu ci njeexteefam de am xasibtum mu ngi wax ak julli ñi an tutraku bu bayee fan leen wala maa ya'lamu llaahu te xamut yàlla al xam-xama feeñal alladina ñaa ñu jaahadu jihaad nañu minkum ci yéen de ak sexand ak sell ndax da ngeen a foog na rek da ngeen di wax ne gëm nañ yàlla rek jeex na yàlla bàyyi ñu si noonu te yàlla du ñu gëstu seet ñu càmbat ñu ba xam ndax li ñu wax ne gëm nañ yàlla dëgg la si ñun wala déet su ko defee nag yàlla dina leen nattoo ay rëg-rëg yoo xam ne ca seen sax ca seen bu ngeen bu ngeen gëmee tam dëgg ci yéen da ngeen sax ci natt boobu de su fekkee nag lëngal yëngal boobu ñëw na am ci yéen ñu daw génn dem sekki ay ay xéefar bu boobaa nag ñu xam ne yow mu soowoon a gëm de ba mu ko defee yàlla ne leen am xasibtum ndax da ngeen jortu an tutraku bu ba yeefat leen wala maa yàlla mi laahu tax xamul yàlla xam-xama feeñal la dina ñaañi jaadu jaad nañu minkum si yéen de yàlla foog mu xam seen taxawaay nu mel de wala mu yettaxidu te wala mu yettaxidu te jàpp ñu min duuni laahi ku dul yàlla wala rasuli yi ak yoonu tam walil muminina ak jullit ñi wala yëtan ab xaritab sa xaritab bakkan de koo xam ne yaa ko jàpp ci sa xaritab bakkan rek di ko nettali say mbóot oh, mu ne ndax kooku ngeen di àndat wala da ngeen di ànd ak yàlla ak yonentam de wallaahu yàlla xabiirun aji ma taamaluun da ngeen jëf ko de dingeen di jëf yëpp yàlla xam na ko de maa kaana xeer lul li mushrikiina ñeel jullit ñi an yaamuru bu ñu dundalat masaajida llaahi jàkkal yàlla yi shahidina mbir mu ñëwee maa kaana nekkul lil mushrikiina ñeel xéefar yi an ya an an yaamuru bu ñu dundalal masaajidallahi jàkkaay yàlla yi de <coughs> shahidina mbir mu ñuy way seede ala anfusihim waral bopp seen bil ku ci kéefar de yàlla daganalut xéefar yi nga xam ne gëmu yàlla ne ñoom ñooy dundal jàkkaay yàlla yi ci seen seeni nañ ko daan dundalee bu njëkk xeefar yi buñ daan ñëw ci kaaba gi di aj si ñoom ñëpp dañuy def yaramu neen na leen seen day jure woon noonu lañ daan waree kaaba gi di ko boole di ko wër di tàccu di wëliis noonu lañ daan waree kaaba gi de mu ne ñu ne ñoom ñooy dundal néegam yàlla bi yàlla ne déedéet de ñoom ñoo nangu nañ ni xeefar lañ ba pare naan dañu dund ak diine ak diine yàlla ji déedéet loolu man taam de ulaayika ñooñu la gars yi di def loolu xabitat <coughs> yàqu na amaaluhum ay jëf seen ndax jëf yoo xam ne àndut ak charte bi ñu koy jëfee seen jëf yàqu na de charte yi aj mooy xarmal mu xarmal euh, muur say yëpp loolu loolu bokkoon te itam na fekk gëm yàlla jiitu na ko nangul yonent bi jiitu na ko de su fekkee charte yooyu amut bon loolu ñuy def yëpp ne dañuy sàmm jàkka ji loolu yëpp dara wéru ci de wa fi naar yi waxum ñoom xaaliduna way béel lañu fi naar yi ci safara de ñooñu ñëpp safara lañ jëm de innama yaamuru na yaamuru naka dana dundal masaajida laahi jàkka yàlla yi ñi nga xam ne ñooy ñooy dundal jàkka yàlla ji mooy ñan mooy ñii yàlla di wax de man amana ka gëm na mu billaahi ci yàlla ki nga xam ne gëm na yàlla mbool yawmil aaxiri ak di kër bés penc waa mu taxawee salaata julli waa te mu joxe zakata asaka xalalam walam yaxsha ragal mu kenn illallah ndara yàlla kooku fa saaxaman na ulaayka ñooñu la gaay an yakunu bu ñu bokkat bi ñul muhtadina ca jub ña de ñooñu di def loolu ñooñu ñoo gëm yàlla de ñooy ñi nga xam ne ñooy war sàmm diine yàlla yi waaye nag sa kéefar gu lëndëm ba pare na dangay ngay sàkk diine yàlla ji loolu moo xamul de ajaaltum siqaayatal xaaji wa imaaratal masjidil xaraami kooku lu ko wasal wàcc na ci abbas ibnu abdul mutalib ñoom ñoom xeefaru màkka dañ daan dañ wax ne puukare woo ne euh, ñoo amee xujjaaji bu ñëwee ñoo leen di ganale ñoo leen di nàndal ndox ñu naan su ko defee nag ñoom foog nañ ne loolu ñuy def topp yàlla la gëm yàlla la buñ leen waxee bu leen yónent waxee ñu ne ah ñu ñu ngi dundal jàkka yàlla yi te ñu ngi ganale gan yàlla yi bu ñëwee bon koy liñ nekk lu baax la ñoom la yàlla di tontu nii ajaaltum ndax def ngeen siqaayatal xaaj yi nandal nandal xaqu jaaj yi waa imaaratal masjid yi ak dundal néeg bi alxaraami ba de muy xormaal ka man amana ni mu di ka gëm na mu billaahi ci yàlla mu di niki ka gëm na mu billaahi ci yàlla wal yawmi ak di kër bés laaxiri ba daa aji mujj ndax loolu ngeen di def ci ca jàkka ji ndax dana leen xema ak koo xam ne dafa gëm yàlla gëm bés penc wa jaahada mu jaat fi sabilillaahi ci yoonu yàlla ba pare jihaad ngir yàlla laa yastawuuna xemootuñu indallaahi fa yàlla ki gëm yàlla nangul ko jihaad fi ak koo xam ne ne maa ngi dundal imaara rek mu ni xemuñ de wallaahu la yàlla laa yahdi jubalti mu alxawma nit ñi azaalimiina ñe de way tooñ de ñe de de alladiina ñaaña amanu gëm nañu wa haajaru ñu gàddaay wa jaahadu ñu jihaad fi sabilillaahi ci yoonu yàlla bi amwaalihim ci jur seen wa anfusihim ak bopp seen azamu ñoo gën a màgg daraja darajatan daraja ca ya fa yàlla de ñi nga xam ne gëm nañ yàlla gàddaay nañ ànd ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba gàddaay jotee ba jaahadu jihaad ci yoonu yàlla ci seen alal ak seeni bakkan mu ne ñooñu ñoo gën a màgg daraja keneen ku keneen ku ci keneen deful loolu de <clears throat> wa ulaayika ñooñu la gaay hum ñoom alfaizuna ñoom ma de way texee de ci jàmm ji nga xam ci xiw wi nga xam ne yàlla ngi koy digle de yubashiruhum dana bégal leen rabbuhum borom seen bi rahmatin ci yërmande minhu ci moom wa ridwanin ak ak ak ngërmande de ñooñu yàlla leen di xamal ne dana gërëm ne leen yàlla ngi leen di xamal ne yàlla yàlla yàlla leen di xamal ne dana leen di bëggalee yërmandeem mu ngi leen di bëggalee itam ak ngërmandeem de wa jannaatin ak ak aljanna ak i tool lawum ñeel na leen fiyaa ci yooyu roteel na imun xéewal mu xéewal mu daañu sax yàlla dina leen dugal aljanna yoo xam ne xéewal gu sax moo fa nekk xaalidiina mbir mu ñuy woy beel fiyaa ci yooyu la aljanna abadan dappet yàlla da leen dugal aljanna yoo xam ne dañ fay nekk biir fa dappet te dara du leen fa fekkati ada dootu gisati naqar de inna laa naka yàlla inde waji nekk la fa moom ajurun yool azimun bu dee aji màgg de yàlla am na yool bu mu leen jox de yaa yool la dina amanu e yéen gaa yi gamal quran laa tattaxidu waaye bu leen jàpp abaakum ay bàyyi seen wa ixwaanukum ak mbokk seen awliyaa ñuy way méngoo in istahabu ndem tànn nañu al ci gëm yàlla yéen yéen yéen nit ñi bu leen tànn seen baay yi wala ngeen tànn seeni mbokk di méngoog ñoom eh, boo xamee ne ñoom tànn nañ kéefër nekk ci kéefër bu leen leen tànn def leen ay xarit ak soppe de xarit jullit jullit mooy mbokkam jullit jullit mooy xaritam jullit lu la xéefar won won won na bëgg naa la ànd nag yow xaritoo naa la ci biir xolam loolu nekku ci de lu nu fexee rek ba yàqal la sa diine dugal la ci loo xam ne sa diine dana yàqu digal la ci loo xam ne mooy yàlla moo ciy topp yooyu yëpp boo demee moom loolu lay bëgg loolu lay bëgg a loolu lay bëgg a defloo ci sa àddina de bon kooku bu la wonee na sa xarit laa du sa xarit bu la waree ne dama dama méngoog yow du méngoo du da ngaa moom de waaye bu leen leen xaritoo bàyyi seen mbokki jullit yi bu leen leen xaritoo nag waxut ne noonu leen leen waxut ne def leen leen seeni noon bu leen leen jàpp ay xarit rek yeex na ah waaye nag képp koo xam ne wonu leen ak noonoo bu leen ko ko won bu leen wonu noonoo bu leen ko ko won waaye nag bu mu tax nag ngeen def leen ay xarit yoo xam ne da ngeen di ànd ak ñoom bu ba bëccëg di leen wax seen di leen wax seen soxlaay biir te xarit ak xarit àgg nañ foo xam ne dootuñ nëbbante dara man ngaa wax sax ba weer sa sa stratégie nit ñi nga xam ne bokk nga ko loolu moo tax yàlla mu bu leen leen bu leen méngoo ak ñoom su fekkee tànn nañ kéefër bu leen leen bu leen leen méngoo waxuñ ne noonu leen leen daf ne bu leen leen méngoo bu leen ànd ak ñoom defee na xarit bu dégg ba sëg de awliya ñu way méngoo ini sax bu nem tànn ñoo kufra kufra ala liman ci kaw ci gëm yàlla de su fekkee tànn nañ kéefër ci gëm yàlla bu boobaa bu leen leen def ay soppe de wa man yatawallahum ku méngoo na leen minkum ci yéen fa ulaayka ñu ñu la gaay hum ñoom azzaalimuuna ñoom de way tooñ de képp koo xam ne nag xam nga ne ay xéefal lañ nga ñëw méngoog ñoom kooku mooy tooñ tooñkat bi nga xam ne ay tooñam ëpp na de kul wax kul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa in kaana dem nekk na abaakum ay baay seen wa abnaakum ak i doom seen wa ixwaanukum ak i mbokk seen wa azwaajukum ak i jabar seen wa ashiratukum ak ay ay jege ñaari seen bu am waalun ak xelal iqtaratuma yooyu yooyu fàggu ngeen ko wa tijaaratun ak yaxantu tax sew naa goog da ngeen ragal kë saadaha ak yàqoom ak pertam wa masaakinu ak dëkkuwaay tardaw naa yooyu gëdëm ngeen leen yooyu yooyu mu tudd yëpp moo gën a soppu ilaykum ci yéen minallahi ci yàlla wa rasulihi ak yonantam wa jihaadin ak jihaad fi sabilihi ci yoonam fa tarabasu mu ñëndiku leen hatta yaati allah ba dikkee yàlla bi amrin bi am yi ci mbiram de mu fekkee nag loolu yooyu tànn ngeen ko wala waxam ne in kaan nem nekk na abaakum ay baay seen wa abnaakum in nem nekk na abaakum ay baay seen ahabba ñoo gën a sopp ilaykum jëm ci yéen mi na laay ci yàlla wa rasul ak yónantam wa jihaadin ak jihaad fi sabili ci yoonam mu ne bon fa tarabbasu de wala wa ixwaanukum ak yi mbokk seen ahabba ñoo gën a sopp ilaykum jëm ci yéen mi na laay yàlla wa rasuli ak yónantam wa jihaadin ak jihaad fi sabili bu waay itam fa tarabbasu na ngeen mu ñëniku de ah wa wa zawjukum ak jabar seen ñoo leen gënal ngeen tànn seen jabar moo leen gënal yàlla ak yonentam moo leen gënal yàlla ak mu ne bu boobaa wa ba mu ñëndiku leen hatta yaatiya Allahu ba dikkee yàlla bi am leen ci bi am lii ci mbiram <coughs> wa ixwaanakum ak i mbokk seen ñoo leen gënal ahabba ñoo gën a sopp ilaykum jëm ci yéen minallaahi ci yàlla ba rasuuli ak yonentam fa talabastu mu ñoo neku leen xataa yaati allahu ba dikkee yàlla bi am leen ci mit mi mu tukkee ci moom de wa azwaajukum wa abnaakum ak i doom seen yu góor ñoom tamit ahabba ñoo gën a sopp ilaykum jëm ci yéen minallahi ci yàlla wa rasuuli ak yonentam wa jihaadin ak jihaad fi sabiili ci yoonu yàlla fa talabastu mu ñoo neku leen xataa yaati allahu ba dikkee yàlla bi am leen ci mbit mi mu tukkee ci moom de wa ashiratukum ak mbokk seen su fekkee seen i jegeñaale ñoo leen gënal ahabba ñoo gën a sopp ilaykum jëm ci yéen minallaahi ci yàlla wa rasuuli ak yonentam fatarabbasu mu ñandiku leen hatta yaati yàlla ba dikkee yàlla bi amrihi ci mbiram de yooyu yëpp moom la de say mbokk boo demee saxaaba yonent yi am na ñoo xam ne rey nañ seen baay ndax dañu ñoom dañoo tànn nekk jullit seen baay des ci kéefar am na ñoo xam ne rey nañ seen baay ni nam ne Abubakar Siddiq génne na jaaseem bëgg a rey doomam ci xare Badar yonent ko aaye ñoom saxaaba yi yépp kenn ku ci nekk def nga loo xam ne wone ne man yàlla laa tànn ak yonentam tànnuma mbokk tànnuma deret tànnuma alal tànnuma commerce tànnuma kër gu rafet tànnuma dara yàlla ak yonentam moom laa tànn liñ joxoñ ci laa nekk luñ joxoñut ne luñ joxoñut nekkuma ci ci saaba yi am na ñu àndewoon ak noonu yonent de am na ñu bàyyi seeni alal yu bëree bëri ngir tànn yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu rey seeni baay ndax tànn yonent am na ñu rey seeni doom ndax tànn yonent bi am na ñu rey seeni bay tax ah ni ki Hamzatu ak Ali ibn Abi Talib Ali na Abi Talib ca xare Badar ñoom ñëpp ñi ñu rey keroog seeni mbokk lañ ay seen doom yi bay tax lañ ñoom ñëpp ndax tànn nañ yàlla tànn nañ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi yàlla tudd yëpp tànnuñ ci dara ñoom yàlla lañ tànn de mu ne yéen ñi tànn yooyu nag fatarabasu mu ñëndiku leen de hatta yaati yàllaahu ba dikke yàlla bi amrihi ci mbiram de te loolu ku ne xam ne tëkku la de wallaahu yàlla laa yed yi du mu jubal alxawma ni ñeen fasiqin ñu daway gën topp yàlla de ñooñu ñi nga xam ne nag ñëpp ñu ngi tànn loolu nga xam ne tudd nañ ko bàyyi yàlla ak yonent ba mu ne ñooñu ay fasiq lañ te yàlla du te yàlla du dimbale fasiq laqad nasarakumullahu dimbale na leen yàlla fi mawaatina ci sax waaye yu bëree bëri yàlla dimbale leen ci barabi xare yoo xam ne kasiratin yu de way bëri yàlla dimbale na leen yéen jullit ñi ci ay saxuwaayu xare yoo xam ne fu demee ni ki badar yàlla dimbale na leen fa ba ngeen gañe fa yàlla dimbale na leen tam ci xare ba ni xureesata yàlla dimbale na leen ngeen xeex ñoom ba dàq leen yàlla dimbale na leen ngeen ba ak nag nadir ba dàq leen <coughs> wa yow ma xone waskur waskur fàttalikul yow ma xoney nin bésab xoney nin ba de bésab xoney ni itam na ko fàttaliku ci bés yi nga xam ne yàlla dimbale na la ci ba nga xam ne gañ a nga say noon de isa jabatkum ba xéemee leen yéen jullit ñi kasratukum ak bëri ak bëri seen ba nga xamee ne xar bu xonee ni ñëw na yonent ubbi na màkka ba ubbee màkka ñu bari ànd ak ñoom dugg ci lislaam gannaaw gi ba nu xonee xete benn giitu yaaram na boo xam ne ñoom ña ngay xadu ngir songu yonent guerre ba mu ko defee yonent itam dégg na loolu dal di jóg ngir gàttandu ji leen yonent du bàyyi xare ñëw fekk ko biir dëkkam bu déggee na xare baa ngi ñëw rek dafay jóg kattanu ji la parce que yow ci biir si waaye du la bàyyi nga ñëw ci biir dëkkam di ko fa fekk ba mu ko defee nag bokk na nekkee ci loolu yonent dal di woote nit ñëpp nañ préparé dem songi dem ci ba ñu xone fete ba mu ko defee ci la jullit ñi nekk fukki junneeg ñaar xare bu rëy nekk fukki junneeg ñaar ci la julli ñu doon wax naan ah tey de mbooloo bari nañ tey de kenn dootuñu gañe ndax néew mbooloo de commencé di yëg seen bopp ne am nañ doole mu ne is ajabat kum bi xéemee leen kastratukum ak bëri seen ba leen seen bëri gi xéemee ngeen foog ne kenn mënatu leen a not falam too ne jëriñut an kum ci yéen falam too ne jëriñut an kum seen dara seen mbooloo moomu lim bari bëri jëriñu leen dara ci keroog de wa daqat taqat aleykum si yéen alardu suuf bi ma raxuban ak ànd ak yaataayam de keroog li suuf si xat xat li suuf si yaatu yaatu keroog xaj na ci yéen de ndax ba ndax xarbu xarbu ba ni xunay fa xarbu xunay dafa mel ni la xewoon ci bu uxud ma fa xew première song bi rek xéefar yu songee leen doole song song bu métti métti ba jullit ñu bari daw ñëpp daanaka ñëpp dañoo daw Ah, Omar ibn Xataab mu ne ma maa ngi mel ni ci kët si doj bi may daw maa ngi sawar mel ni ci kët si doj ko defee nag yonent rek moo des ca ca kii ba ca tooli xare ba yonent ak Abbas ak Ali ak eh, jàmbaar du mat fukki jàmbaar du mat fukki ak ñaar daal ñoo des ci bi de ba mu ko defee nag Euh, yonentu dal di gis ne saxaaba yi daw nañ su ma wallaytum topp ngeen dëdd mut biir yi na mbit mu ngeen di way daw de julli ñi dal di dëdd rek daw won yonent bi gannaaw ba ko defee nag lu xew su ma anzalallahu topp wàcce yàlla sakinatahu dalam nga ala rasulihi ci yonentam wa alal muminina ak ci julli ñi de yàlla nag dal di xéewal yonant yakkiwal ko dal nga xam ne li xew yépp tiitalu ko li xew yëpp jaaxalu ko de ci bés boobu bés bu metti boobu nga xam ne xeefar yaa ngi gañaa nañ ñu ngi puukareewu naan ana yonant bañ rey ko yonant mu ne keroog mu ngi war benn baax la naan ana nabiyu la kadib ana ana ana ana ibnu abdul muttalib dal war ci fasam di wax ca kaw ndax ndax yo xéefar yi ñoo doon laajte ana yonent bañ rey ko ba mu ko defee nag yonent daal di jóg war ci baxlaam bax la mënta daw nga xam ne kii parewut pour daw nee naan maa ngi nii ana nabiyu la kadib ana ibnu abdul mutalib ah, di ko wax de ba mu ko defee nag yàlla dal di wàcce ci ñoom wàcce ci julli ñi nag ak ñeme ak dal ndax dal gi nga xam ne gis nañ ko ci yonent de yonent ne na nañ ko dimbale ba yëg ci doj wi bu ko saxaaba yi gisee rek danañ danañ del saat ci moom ba mu yéegee ba saxaaba yëpp seen ko rek dal di ñëw ci yonent bi nag ñëw ci xare bi ñëw song song moo xam ne ca lañu raatale mu nay ni pare nag ci la yonent tibbee ci loxoom suuf dal di koy sànni ñoom ñëpp ñi mu ah, ñu xare bi yëpp dal di ah, dal di màbbale xare yi xeefar yëpp dal di màbbale wanzala mu wàcce junnu doon ay lël yàlla wàcce ci yéen ay ci ndimbalam ay soldaar yoo xam ne gisu leen leen lam tarawhaa yooyu gisu leen leen de yàlla wàccee leen ay soldaar ñu ñëw di leen dimbale soldaar yoo xam ne gisu leen leen de te ñooy ay malaayka yoo xam ne wàcce na leen ci yow ma Xunayn wa azaba mu mbugal la dina ñaa ñi kafaru wedd nañu ci rey de wa dalika loolu jazaa'ul kaafirina mooy pay ak yi de loolu yàlla def leen keroog ñoom ca Xunayn lam ko def yéefar lam def yéefar ya loolu la yàlla di fayee de su ma yatubu laahu topp nangu yàlla tuub min baadi zalika ci gannaaw loolee alaa man yashaa ñee ko sob ci ay jaamam de gannaaw loolu nag yàlla nangul jaamam yëpp ay tuub de ñi nga xam ne dawoon nañ yëpp rëccu rëccoon nañ ba daw ñoom yëpp yàlla nangul na leen tuub de wallaahu yàlla xafuurun aji jéggal la mu ñeel ay xejjam raximun aji yërëm la mu leen de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim